ansbillah bisimillah inna waleela asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen ay ànd ak ñun euh, ñu ngi leen di ziar baax leen jox seen wàccuwaay euh, tey nag ñëw nañ foo xam ne ni fu ñu baaxoo ñëw la euh, ñëwati nañ fi ñëw fi ñëwaat fi tey nag ñu ngi fi ñëw spécial boo xam ne nag dañu ñëw seet si ki nga xam moo di Baye Cheikh Thiam boroomam ñu gën koo xam ci Baye Baye Cheikh Thiam xaritu boroomam mu nekk fi ci dëkk bu sell di Touba. Euh, léeg-léeg nag xañ na nag ñu bëree bëri ñu ko xamul tamit dañ ko miin wala wala mi ngi ne moom daal euh, nit la boo xam ne léeg-léeg euh, bu ko di am loo xam da koy faral di feeñu bu ko dikkalee danañu woo ñu ñëw fas mu fas yéene ko baaxee ak mbokk yi nga xam ne ñoom lañ jàkkaaral kon sëriñ bi ginnaaw bu ñu la ñu ngi lay ziar. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la xawla wala quwwata illa billahil azim barke borom Tuubaa barke borom ma ni alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ma dellu sant yàlla sunu borom subhanahu wa di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa di gën gi mu def Seydina Muhammad di sant Serigne Touba sunu wasila di santit Serigne Xaasim Mbàkke ca di ko ñaanal yàlla sàmbaram dolli ko xéewal ci àjjana yam nekk moom mi nga xam ne mooy sunu bunt ci sëriñ Touba di ko fasaaleel mbooleem jullit bu nekk ca barsaq di ñaan ci yàlla sama borom subhanahu yàlla taw feexal mboolem jullit bu nekk ci kaw suuf fasaale ci jaamu yàlla yépp ndax yàlla mbiram de daayaatu ci yërmandeem daa ci ku ne xañ nga ci. Euh, jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu matale bu am solo boobu euh, tey nag xam naa waxtaan wi du mën a bëri ci ñetti ponk rek euh, lañ koy tënk bi ci njëkk dañ ñëw ci wàllu Covid bi ci nga xam ne jamono ji kenn kon ne xam ne ni mu lëmbee li nga xamoo di àdduna bi sëriñ bi loolu ana lan la ci li nga xamoo di nga xamal suñu borom lan la la ci xamal. waaw nuyoo bi dafa des maanaam yeggale ko ci sëriñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne nii mooy xalifa général des yàlla sàmm dénk ko jamono. di ko fasal leen mbooleem ku mu nekkal ci diine ji ba tax may ma bàyyiwuma benn jullit lii nga xam ni nag moo fi am di mbas mi di Covid 19 am na lu ñu ci seen borom xamaloon ba ñu waxoon ko yaakaar naa boobu ba nëgë ni gisuñu benn pexe benn pexe bu dul ñaan ci yàlla suñu borom mi nga xam ne nii mooy boroom lépp. tey nag di juróom-ñaari fan ci weeru gàmmo bi dëppook alxames ji ci sisbaar lañu sunu borom xamal ni lii di tawat jii di covid 19 dana ko fi toxale bi su tamxarit bi yàlla sama borom dana fi toxale lii nga xam ne mooy covid 19 ubbiwaal it lii nga xam ni mooy koomum àddina mi ba réew yépp kenn ku ci ne mun a gis sa bopp delluwaat ci Asia loolu la ñuy xamal sànq bi ñu fatoo ba ci tisbaar lañ ko sun borom xamal man nag duma ñëw mukk di wax sama waxi bopp ndax xawma mënuma amuma waaye damaa jébbal sama lépp sama borom subhaanahu wa mu dellu lépp sëriñ tubaa mu téyel ñu koy liggéeyal lii nga xam ne nii moom la si mu nit mooy nekk ab jaam la rek kër bi ab jaam la rek saa bu ko yàlla na ma rey toxal mu toxal ko fi dafa lënkoo nag ak i pexe ci noonu lislaam yi ngir ñu mën a nasaxal islaam pexe yooyu nag day naax saay di atum junni ak ñeent fukk ak ñaar incha allah yàlla sama borom dana fi tuxale jàngoro ji ndax dem nañ ba kenn ku ne xam ne ku dul yàlla mënoo ci dara yàlla moo may nga xam ne ni moo kattanal tawat ji ba mu tiital nit ñi xiifal nit ñi am ci ñu mu rey yàlla sa borom moom moo koy saafara ndax feebar bu ko gën a bari mi ngi fii ci biir réew mi mi ngi ci biir àddina feebar bu ko gën a métti mi ngi ci biir àddina waaye dem na ba nga xam ne ni gisatuñu benn feebar bu dul Covid te yeneen feebar yi li muy rey moo ëpp Covid 19 boo demee baax ya la lañ fay rob di ko suul kenn xamul nu mu toll Covid yóbbuwu leen boo dee diglu tàggee dañuy tàgge ba. ba waxtu wa jeex ñu delawaat te tàgg yi ci ko di buwu leen kon nag bu ñuy ragal nañuy ragal yàlla mi ngi xam ne nii moo jar a ragal bu ñuy jaamu nañu ñaamu yàlla mi nga xam ne mooy aji ki ñuy jaam ja war a jaamu liggéey nag la ma ci suñu waxoon rek ba ma ko laajee liggéey ban mu ëpp jaamu yàlla ban mu ëpp rëy gën a rëy ci jaamu yàlla mun ma liggéeyal seen tubaa kon nag liggéey bi ci gën ëpp doole ci am tawféex ci jaamu bi yàlla moom mooy liggéey Serigne Touba ñun nag dañu fas yéene di liggéey Serigne Touba sunu dund ak sunu faatu toolub Serigne Touba bi nag mooy toolub rasulullah alayhi salaatu wasalaam yaatu na lool du joxe xaalis rek du yëngutu ñax rek bëri na nuñ ko ne liggéeyee tool bi nuñ ciy liggéeyee. lii moo tax ah ñuy ñaan ci yàlla sunu kii di sunu jëwrin yàlla sàmbaram dénk ko jamono di sëñ taxa yàlla sàmbaram li ko tawféex ndax moom mi ngay gis de daaw ci bi nawet bi tëyee de mu dem fatu njaareem suñu borom wuyu na ko nawetu daaw kenn gisul wax set kenn gisul sàttin mbar dafay sotti rek ba nawet bi jeex ca dara yàqu kon dañ koy ñaanal dolli taw fee xam bi ñu muy jooju muy wax yàlla sama dolli ko bu baax boole ñu ko ñun ñëpp jullit bi ci ay sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah, ci wàllu wi nga xam ni nag muy xeexoo bu mag bii nga xam ne sëriñ Tuubaa moo ko digle di màggal gii sëriñ Muntaxa rek moo ci yor kàddu sëriñ Muntaxa Mbàkke rek moo ci yor kàddu sëriñ Muntaxa rek a ci yor kàddu kenn yoru ci kàddu ndax lu mu def fii ñu toll sunu borom ànd ci ak moom kon nag gëm naa ne lu neex sëriñ tubaa rek lay sakku waaye setul lu neex keneen sëñ lu neex sëriñ tubaa rek lay sakku waaye sakku lu neex keneen doo ko mës a gis mu dox ci lu dul lu sëriñ tubaa bëgg kon nag lii ñu dëgmal dañuy ñaan ba ko dara yàq te dara lu ko yàq it dara du ko yàq dara du ko yàq képp koo xam ne nii muy ku munti doon jóg nga ngir bëgg cee indi safaan yàlla saa borom dana dana la toroxal ci saasi kooku amul demal ma ñëw ndax mbir mi taxaw na ba pare ci yàlla ko taxawal mbir mi taxaw na ba pare ci yàlla moo ko taxawal yàlla daan wax ni bu mu rëddee nga far mu rëddaat nga far ma far la bala ngaa faraat sama rëdd te lii may wax nii kenn mënu koo fanq ku ko nam ma fanq da fi jóge muy màggal Tuubaa bi dama ne ku ko nar fanq yàlla sàmbarum na la fi jële ci jëlin bu doy waar lay doon incha allah jël nañ nag jël nañ nag ndigal ci suñu borom ni jàngoro ji ci boppam yàlla sama borom toxal na ko ci at mu bees mi atum junni ak ñeenti téeméer ñeent fukk ak ñaar boo ko seetee lu muy dëppool gaaw bi di ñëw waaw ci tamxarit weer wi gaaw bii di ñëw nekk juróom-ñeenti fan di guddik fukkeel ba reer yi ak yooyu ci la yàlla sàmborom na sa xale jàngoro ji nga xam ne mooy covid 19 euh, pour loolu moom dama ne la yàlla fanq na ko ba pare yéen yi ñaan nag ah ñaanu mucc ñaanu tam xarit la mucc ci balaay at meeg yoolu ba bokk jotewul ak Covid 19 dara lii moom mooy jàngoro ji nga xam ne nii moom la àddina bi yépp doon wax fàtte lépp am na ci ñoo xam ne sax dañoo fàtte yàlla ngir jàngoro ji ndax ragal ba ragal jeex ragal yàlla moo ci gën kon nañuy delloo suñu bopp yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ah, ci gëm ni rasulullah alayhi salaatu wasalaam mooy gën gi mi def nu ngi yonent yi waaye yàlla wàcc yépp nag ndax seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy saafara si Sëriñ Tuubaa mooy docteur bi yàlla mooy hôpital bi kon ñett ñi mun ñoo tàggoo boo déggee nag man Cheikh Thiam ma ni xaritu boromam kooku yàlla ci boppam moom moo ko nangul defal ma ci it ma gis wax ma may dégg ndax bu ma demee ba yàlla sama borom subhaanahu wa di ma liggéeyloo ci sëriñ Touba ma ni alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi ndax fi mu may liggéeyloo ci sëriñ Touba mi ngi ko jaaroon Cheikh Cheikh Cheikh mu nekk Cheikh Mouhamadou Lamine Baara borom ñaari bàmmeel yi bàmmeel yi armeel yi boo demee ci penku jumaa ja jumaay Tuubaa fekk fa ci biir armeel yi boo demee ci pénc ma fekk ko fa waaw sëriñ Baara 1990 ba Abdou Abdou Cheikh Abdou Baara El Hadj Abdou Baara nelawee mhm. la ñëwal boppam dugg ci jëmmi Cheikh Sidil Maxtaar ji di xaar jamono ñu jox ko jamono ndax fekkente ne nekk fi sëñ Fallu te muy ñaari kuy yoo xam ne mënuñoo bokk mbalka kii dem bàyyee kii yore jamono ba waxtoom jot mu ñëw toog di ko xaar moo waral sam borom ni ma woon bi nga xamee ne sëriñ Saliou làqu na mun ma demal ci Mbàkke Kajoor ba fekk fa ku ñu naan Sidil Maxtaar mooy Cheikh Mouhamadou Waara booba seen Cheikh Matalay rek la ñuy wax lii may wax nag nëbbutuma ci làquma ci wutuma ci bës wutuma ci ku xam man liggéey Sëriñ Tuubaa rek doy na ma pay Sëriñ Tuubaa rek doy na ma soxuma la neen du fii du fañ jëm sama njaboot gii ngay gis tàggoo naa ñoom deux mille deux ba léegi ñoo ngi door a bokk benn jataay mosoo fee ñëw fii fekk fi fekk fi sama ak njaboot ci kër gi kenn mosoo ñëw fenn fekk ma ak njaboot ci fa may nekk sama borom képp lay nekkal yàlla moo ko def ndax wéetal yàlla dafa mun la ànd ak wéttalikoo doomu adama te dafa ma joxoon mission boo xam ne ni mission wéetal ko maa ngi ñaan nag ci yàlla suñu borom lii nga xam ne moom la ñuy dëgmal di màggal Tuubaa gii yal na ci yàlla sama borom daf taw ceexe joo xam ne ni kenn mus koo teg bët ndax la Sëriñ Tuubaa waxoon lii lépp rasulullah alayhi salaatu salaam mi ngi sama loxo bii lépp yàlla mi ngi sama loxo bi lépp ngi sama loxo bi ku mu séddu loo séddu ca toll nañ foo xam ne nii ci jamono tey not nañu lislaam not goo xam ne nii gisoo kenn kenn ku ci mandara ku du yàlla suñu borom loolee nag wëlbati war na ko yëkkati ndam li jébbal ko Serigne Touba ndax ba ñuy tëj jàkka jeeg jumaa yi kat mel na moom dong moo fi ubbi jumaa mel na moom dong moo kon nag ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam économie bii nga xam ne ni nag réew yëpp nërmeelu na ndax lii di tawat gi képp ci ay pexe rek yàlla dooleel ci iblis ba nga xam ne ñëpp fàtte nañ lépp kenn defatul dara ndax toog leen seen kër takk leen ay masque kooku mooy toog leen ci bu leen wax ñoom ñuy def lañuy def di dem ak a dikk ah tëj nit ñi ci kër yi di leen tiital di leen xiifal ngir lépp loo xam ne moom lañu bëgg a def ñu def ko ndax ñoom li leen yitteel mooy koomu àddina kese moo leen yitteel kooku mooy groupe lobby bi président bi yépp nag dañ leen dañoo ragal ba nga xam ne nii maanaam xoolatuñ ci yàlla lañuy ñuy xool rek mooy la bañ a foq seen nguur ca nguur yàlla moo koy joxe ca saa bu ko soobee mu dindi ko économie boobu nag yàlla seen boom xamal nañ ni bisu tam xarit bi bis bu egsee réew yëpp ci kàttanu yàlla seen économie ci boppam nañ ko ubbi seen économie yëpp dana ñëwaat ci kàttanu yàlla te ñu xam ne lislaam rek ay dëgg yàlla dafa tànn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy gën gi mi def mu tànn Serigne Touba mu koy liggéey muy man mi man gi mi def kon ñun li ñu am nañ ko xam te bañ ko fooye Serigne Touba duy wax. Serigne Touba jëf la de waaye duy wax de jëf la maa ngi jajjaat sama mbokk jullit yi sama mbokk murit ñëpp kenn ku ci nekk foo nekk nanga ah, na nga dolli sa ragal yàlla sëg wóolu yàlla sa gëm yàlla ca xam ne yàlla mooy ki nga xam ne mooy faj aajo kenn mun la faj fa aajo ko du suñu borom subhanahu wa taala Serigne nag fa mu nekkoon man yàlla daf ma cee wan loo xam ne nii bërul ku ko ñemee ku ko ku ko ku mos nettali mbaa ko koy wax tëju naa ci néeg jëm ci yàlla yàlla fete suma joxam mi sëñ tubaa ma wëlbati ko sëriñ tubaa sëriñ tubaa soppati ak leer dugg ci biir boromam ma taxawaat ni yàlla yow yàlla ana sëriñ tubaa mu joxañ man sëñ saaliw lépp ci biirum nekk kon boo texee ma naan la sëriñ tubaa leer gu jóge ci yàlla dellu ci yàlla moom bind na ko sëriñ tubaa mooy sëriñ saaliw kooku jaam bi banni aadama dam ban bi mooy sëriñ saaliw moo waral sëriñ saaliw waxoon waxam ju réy mu ni bu ma leen jiitoo danaa leen xaar bu ma leen rawe jiitoo danaa leen xaar bu ngeen jiitoo ma dox topp ci yeen bu ma doxee ba gësatuma leen ma wan neeku gàttandu leen topp gàttandu leen sëñ Tuubaa du tàggoog ñoom boo xoolaatee liggéey bët ki démb ci kër Saliou gi ci sëñ Cheikh rek nga xam ne nii sëñ Saliou sëñ sëñ Saliou mi ngi ci jamono te loolu ba muy ñëw jamono la ma ko sama borom xamal ba muy gisee ak boromam la ma ko sama borom xamal ba muy ñëwaat jamono sama borom xamal ma ko waxoon ma ñaata weer la fay def dellusiwaat jamono ah, maa ngi ñaanal nag. sëñ Mountakha Mbacké ndam lii nga xam ne ni ma ko daan ñaanale Cheikh Sidil Makhtar muy ndamul lislaam moom laa koy ñaanal ndax kat lii nga xam ni moom lay def ci kaw jamono jii jii suñu borom xamal na ma ko at iya li ko sëriñ Tuubaa di liggéeyloo di ñett yii xam-xam bi ndoxum Tuubaa kaaraangeeg Touba ñett yi la ko sëñ Touba liggéey loo may ci woon nag bépp taalibe ak bépp jullit ak jaamu yàlla boo xam ne nii am nga xol bu baax boo xam ne nii mën nga liggéey sëñ Touba wan la ci ci ñett yi ndax Touba mériwutowul yenn dégg-dégg yi kenn ku ne nag war ngaa jël sa responsabilité ci kaaraange gi kenn ku ne war ngaa jël sa responsabilité ci sa xam-xam bi kenn ku ne war ngaa jël sa li nga xam ne nii mooy kaaraange kaaraange geeg ndox mi ndax ndox mi gis nga kat Touba ca kanam ni muy doxe fi ñu toll kon kooku xaarul kenn siñ Touba ku bëgg ànd ak moom doo xaare loolu am na luñ ci wax xamoon wax waxoon ci jumaa yi poroxaan jii waaye kañ ko waxaloon taal bi suñ sëñ Moussa Bachir la koy liggéey ba ma ko ko waxee dañoo toog ab diir sëñ sëñ taxa woote ko kon murid luñ song mu daal entrepreneur yi sëñ mooy murid yi lépp luñ bëgg a liggéey dañ ko liggéey ci sëñ Tuubaa moo leen di dimbale dégg nga sëñ Tuubaa li mu yor du jeex ndax Covid 19 bii. fitna ji li muy rëy rëy ndax ak Touba li ñuy wax lu nekk ñu koy wax ci Touba dama laay laaj ndax Touba ci boppam gis nga fi fitna ji nit ñi dund gu dund gu neex lañuy ñuy dal dund gu dal la ñuy dund ndax maanaam dañ ko gëm dañ koo dëm gëmuñu ko dunduñu ko li ñuy dund mooy sëñ Touba sëñ Touba bu xasee fees sa xol dara dootu dara dara la neex ci sëñ Touba moo fees xolu murid yi murid yi moo tax yëgatuñu dara dara yëguñu ko dul jàmm ak salaam man nit tawat na ba tàyyi tiit ci boppam ci biir Covid bi nga xam ne doo dem doo gis kenn ku la jël doo gis fànn foo jëm dégg nga ne ma woo ma téléphone ma jël sama téléphone ñaanal ko mu daal di jóg ci saase loolu sàmbam dimbali na ma ci kooku dañuy sant yàlla nag ah, du sunu ngóora du sunu dara yàlla kese la ñun nag mun ñoo faj aajo yàlla mooy faj aajo ah damay wax mu leer mm-hmm. mënuñoo faj aajo yàlla mooy faj aajo ñun li ñu man mooy ñaan ci yàlla suñu borom rek yàlla wuyuñu ci yërmandeem ju màgg ji waaw kon nag ah li nga xam ne nii moom la ñuy def fii fi Touba nag ah na ci murid yëpp jóg jàpp muy liggéey bi Sëñ Touba bii màggal gi ñu dégmalit nañ ñëpp ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa mu def tawféex yu rëy yoo xam ne mosula am ndax kat sëñ Muntaxa mii dafa waxoon bi muy door a toog dañuy nañ ko taw ba bum laal suuf kon taw boobee nañ ko ci jàppale ca xam ne buñ ko ci jàppale yàlla jàpp na ko ba pare kon nag nañ ci jàpp am ci yàlla am ci sëñ Tuubaa am ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam lépp nag mooy ñam mi lu mu bari bari bari xorom sa mooy Cheikh Ibra maam Cheikh Ibrahima Fall Baal Mouridine kooku bu dee liggéey Serigne tubaa nii nga xam ne moom la ko yàlla xamale muy liggéey Serigne tubaa mooy jaamu yàlla gën a màgg ci jaamu yàlla yi boo ko gisee moom si maam Cheikh Ibrahima boolewul ak liggéey Serigne Touba ak boolewu ko dara looloo moo tax mu raw ci góor yàlla yëpp. ñaanal seex si jëmb mi nga xam ne moo ko fi nekkal nag ak i rakam ñëpp yàlla sam borom dool gën yàggal lool lool ci barke borom Tuubaa ndax ñun dañuy dund Cheikh Ibra ndax damay wax ni Serigne Touba teew na ci man ñetti yoon yoo xam ni jaaxaran ma bokk ak moom toog waxtaan ak moom ci daaru Minam Jibril alayhi salaatu wasalaam ba nga xam ne yàlla mi ngi ko yebal muy jëm si man jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi Baay Faal la yor laafu foo ko fekk foo ko noo ko takk weesu na ko Seydina Jibril ak leer ga jël ñu yóbbu ñu ci boromam mu sant ñu li ñuy sant dellu si ñu ci ñu tàmbali liggéey bi maa ngi ñaanal nag eh, mbokk julli yëpp di ñaanal jàmm yàlla yëpp yàlla sàmbaram doon ñu feex lii nga xam ni maanaam mooy koom mi na sax yàlla samram yëkkatiwaat ko ba kenn ku nekk am ci loo xam ne ni da ko mën a jaamoo yàlla liggéeyal ci Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuulillah sallallaahu alayhi ah, maa ngi ñaanal nag ñii nga xam ne ñoo fi jóge yàlla samram xaral leen ajjana ci ajjana ji gën a neex ci ajjana yi muy fi daw si ak leen yi ci yi ci gën a kawe yàlla yàlla samram dool tawféex taw feex a baax a baax a baax baax a baax ah ñoo ngi ñaan nit dëkk Tuubaa bii lépp loo xam ne fitna la mbaa muy lu ca bokkul yàlla na ko fi yàlla saa boroom génne ci lu gaaw a gaaw gaaw gaaw nag maa ngi ñaanal ñëpp ah, di fàttaliwaat sama wëllër wi sëñ Mountakha eh, sëñ Mourtala Falilou ah, di ko nuyu bu baax ah, di ko dolli ñaanaleet moo ñi mu bokk sëñ Tuubaa ñëpp ak ñu mu bokkal lislaam bi yëpp jërëjëf barkeb sëñ Tuubaa tawfeex waaw seen chaîne bi di 24 actu nag ah. danga daan ànd ak laaj Modou Gueye ci di ñëw mm-hmm. waaye man dama nekkul ci ab chaîne mm-hmm. ndigal suñu borom laay jëfe mm-hmm. ndax du saabu ma neexee ma wax déedéet dañ may wax loolu nga wax ndax lañ may wax ka koy def du man ka may wax la moo koy def muy suñu borom subhanahu wa taala waaw jërëjëf ngeen jëf euh, mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon léegi dégg ngeen ko gis ngeen ko tungu ne ne du teew ñuy nataal ni ko wala fi di waxee euh, kooku moom mooy Baye Cheikh Baye Cheikh Thiam xaritu boromam ñu gën ko xam ci Baye Cheikh Thiam xaritu boromam moom dégg ngeen ni mu ko waxee rek noonu lay demee euh, moom bu ko wax loo rek. dañuy daati woo ñu ñëw mu wax ko li nga xamoo moo di mbokk taalibe yi wala fu ñu mën a nekk ci bi kon ñu sant ci yàlla ci li nga xam ne ni kàddu yi nga xam dégg nañ ko fi di ñaanal ku tedd kii Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, yen bi oyof lool ci kaw ak euh, ci lépp loo xam daal ay yéeneem la kon nag di woo mbokk taalibe murid yi comme ni ko Baye Cheikh Thiam boroomam waxee rek ci liggéeyub sëñ Touba bi nga xam moom lañ koy liggéeyloo fii euh, tey nag ñi ngi ñëwoon fii seet si woon ko kon seriñ bi ñu ngi lay sant baax di leen jox dig daje ba ba beneen